kon nag wuy ji ku jóg wuy ji aas am say ngërëm ñaawoon lii ñuy wax dañuy lim délégation yi fi ñëw waaye fii bala sëñ Abdou Al Amine jël parole sunu waajur El Hadj Mansour Mbaye moo koy introduire sëriñ bi ñu ngi lay wax nii Serigne Seydina lay taxawal fi xalif général des Layènes ñëw na mi ngi nii toog El Hadj ñu koy wax Pape Paris ku am taxawaay la ak yéene ci njaboot gi ñëw na Grand Serigne de dakaar wax nañ ko léegi ñëw na waaye fii dafa am koo xam ni ñu ngi koy wax El Hadj Alioune Badara Cissé Dimenter sëriñ bi daf fi indi benn hôpital itinérant démb ak tey opéré nañ fi juróom-ñaari kaaw katarak fii ci Tivaouane cinquante yoo xam ni booba ba tey mi ngi koy bëgg indi mu tombeek li nga xam ne mooy hommage bi ñuy rendre sëriñ Mansour si borom daara yi mu ñëw indi boobu hôpital ñu opéré fi cinquante personnes loolu sëriñ bi mooy li nga xam ni moom la ñu bëggoon a wax le préfet est là waaye délégation gouvernementale bi nee nañu mi ngi ñëw saa bu ñëwee ñu jël tur yi présenté le ñi nga xam ni ñoom la président Macky Sall yabal Mansour Faye it yabal na fi délégation bu am solo sëñ Habib nee na ma insister ci li nga xam ni mooy taxawu daayira Moustarchidine wala Moustarchidaat ci matériel bi ak exposition bi nga xam ni ñoom ñoo ko amal yendu ci tente bi defar ko ba mu mel nii mu mel muy seen participation ci li nga xam ni mooy hommage bi ñuy rendre sëñ Mansour si borom daara yi mbokk yi ma jox bala may guddal sëñ bi di wax ma jox ki nga xam ni mooy sama nijaay wax leen rek ni la sëñ Mansour daan wax ku fekk maa joor ci toolu joor di nga xam ni mooy joor kon sëñ mën sor mooy joor ngeen baal ma àq bismillahi rahmani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 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu bokk yi fi daje yépp di leen ziyaara di leen balu xaq di leen bal xaq di jiital ci nuyoo bi sunu baay bu tedd bii fi teew di sëriñ Abdul Aziz Sy Al di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam may ko wér mu fekkee tatal ñoo koy nuyu di ko ziyaara di ko jox cëram buñ ko nuyoo mu teew nii tey te yàgg a dëpp depuis sëriñ bi di dund Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour bi nga xam ni moom lañuy fàttaliku tey mu boole kook ñun njaboot gi wooñu ba ñu ñëw muy sëriñ Cheikh taawam sëriñ Moustapha sëriñ Habib ak man mi nga xam ni maay seen rakk mu ni ñu man ak seen baay Abdula yéen ak moom la bu ma leen santee mu sant leen bàyyi leen li ma leen sant def li mu leen sant loolu moo ñu ko digaloon moo ñu ko digaloon te laataa muy dem waxaatul leneen kon yaakaar naa ne la mu njëkkoon a wax loola ci la ñuy wéy kon papa ci turu famille yu Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour te sëriñ Cheikh mi nga xam ni mooy suñu taawu kër di suñu xalifa jiite ko rawatina sama cheikh bii di Serigne Habib di sama mag di sama kilifa yarma ak Serigne Mustapha. mi topp ci sëriñ Cheikh ñu jël seen kàddu ni ma boo ñëwee ma nuyu la dalal la fa tabaarakallaahu looloo waral ñu jël kàddu xam naa ñu baree bari dinañ jaaxle sax ci li ma taxaw fii di wax ndax bariwul lu ma ko def rawatina Tiwaawan waaye nag ndigal boo mënee defal boo mënul defal sama baay moo ko daan faral di wax kon famille bi nee nañu ñu ngi gërëm képp ku fi teew moo xam ku sori la moo xam ku jege la di la ñaanal yàlla bépp yiw boo xam ni fa tabaarakallaahu doon nga ko séntu ci bis bii yal na yàlla jox jox la ca lu wees seen njort ñëpp teew nañu ñëpp ñëw nañu bis bi bisu Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour la muy bisu ziyaaraam di bisu bii na way pencooña pour jàngale xam-xamu diine mu nekk daayira sëriñ bi yàlla def ren njaboot gi àndaat ni dañ ci profité fa tabaarakallaahu delloo njukkal Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour ñépp ñëw Cheikh di Mouhamadul Mansour nag ku ko xamoon yaa ngi ko xam ci jàng ak jàngale ak liggéey ma ni Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour ku ko xamoon yaa ngi ko xam ci jàng ak jàngale ak liggéey loolu sama baay Serigne Abdou dina ci ñëw moo koy wax nit bu xamul nit bu xamul bàyyi ma la kon kala xamal mënatoo koo fay te yàlla moo wax ci xadiisul qudsi mu ni bu fekkee ni danga ma nar a jaamu te xamuloo ma jaru ko kon xam ma laataa nga may jaamu may faral di wax benn wax ma ni jamonoy tey jii ku ci gànnaay yoowul ñeent laax lakk na la ma ni jamonoy tey jii ku ci gànnaay yoowul ñeent laax lakk na la waratoo dund muy fulla xam-xam fit doylu boo amul fulla dañ lay foye boo amul xam-xam dañ lay nax boo amul fit dañ lay xëbal boo doyluwul ñu jënd la ma ni jamonoy tey jii ku fi gànnaay yoowul ñeent laax lakk na la ñeenti yan la fulla xam-xam fit doylu ma ni boo amul fulla dañ lay foye boo amul xam-xam dañ lay nax boo amul fit dañ lay xëbal boo doyluwul ñu jënd la loolu gisoon nañ ko ci Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour mu donne woon ko ci baayam abu Aboubacar si te la ja ak fayda ja sëñ Babacar si dafa waxoon ni man Babacar aw ma problème lu la neex def ma waaye ñett awma ci maslaa képp ku yëkkati sa baaraam jëmale ko ci ñoom man baabakat ma damm sa baaraam ñu ne ko ñetti yan la mu ni diine ji ak tariqa bi ak Seydi El Hadji Malick loolu fulla la la mu defoon naar ba ñeenti yi denc di gan du amirul muminina ba pare itam xamuñu xamuñu xaalam mu ñëw ñu jiital ko mu ñëw ni sëlmal leen ni góor gi Atoumane Ndiaye demal ca kanam kii waru la jiite bu bëggee njox wax ko hadiya maam moom mu dem waaye nag moom waru la jiite kon foofu ñeent feeñ na fa ci suñu Babacar Si bu amuloon fulla du ko mën bu amuloon xam-xam du mën a sukkandiku ci masala diine pour def ko bu amuloon fit itam ndax xonqaay ba la xam doy na bu doy loowu loon itam Seydil Hadji Malick mi mu am ak tariqaam ak Tiwaawan yooyu yëpp kon du am kon Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour ñépp xamoon nañ ko ci xam-xam ci jàng ak jàngale ak nangoo liggéey te yàlla yàlla bi mu yónnee Seydina Muhammad mu daan wéet ci xaaru Xiraa yàlla yónni ko la mu ko njëkk a jox xam-xam la julli li muy foor foor foor dëgg la Màkka la wàcc waaye ci mujjantalu fan yi Muhammad ci la julli wàcc te kado la bu yàlla joxoon Muhammad ca rañaan ga ak yéeg ga benn at lañ ci teg Muhammad Muhammad gàddaay te Muhammad fukki at ak ñett la am makka am fukki at madina muy 23 ans muy addu yëj yi yaa ñaata la 10 beneen yaa 10 muy 20 jiim ñaata la 3 muy 23 yonent bi sallam bi ko yàlla yónnee ak bi mu faatoo 23 ans la am 13 ans makka 10 ans madina moo tax Seydi wax ko ci xilaas ba ni وجيم عشرة عاما في قريش ثوى مناديا قومه والقوم في الحرم لكنه لم يزل يقفو مواسمهم يرجو من الله عونا غير متسم kon yéen bi sallallahu alayhi wa sallam koor li muy foor foor Madina la wàcc azaka li muy foor foor Madina la wàcc aj Makka li muy foor foor Madina la wàcc julli moo ci wàcc Makka te kaddu la bu yàlla jox Muhammad te eh, ca rañaan nga te ca mujjantalu euh, état bu Makka la xam nga loolu lu ko waral tool dañ koy ruuj bépp aaye boo dégg muy wax ci xam-xam luy xamal nit ñi yàlla ak luy defar jikko makk la wàcc lu gën a bari mais àtte jëf àtte jëf wàcc madina balaa ngay julli balaa ngay wóor balaa ngay joxe azaka balaa ngay def nangam ak nangam xamal ki la ko digal ba pare moo tax yàlla ni yàlla aaya wàcc makka qul taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum allaa nacbuda illa allah wala nushrika bihi shay'an wala yattaxida baaduna baadan arbaaban min duni illahi fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi ana muslimuuna kooku de yàlla dafa doon xamal nit ñi mooy kan ba pare ak defar jikko yi ba mu ruujee tooy bi nag ba mu leer mu soog a wàcc ak tey jëf nag madina fekk boobu tool bi leer na du yàgg yàlla dafa dafa jël instrument bi nga xam ni moom lañuy jànge muy xalima mu mu mu mu wax ko mu indi ko pour xamal ni nit daf nit pour mu jàng day bind iqra bismi rabbika alladi xalaqa xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam si xaj malik wax ca xilaas ba nii min baadi tain wa laamin thumma sittati ashhurin raa kan filaaqi subhi lam yahimi wallahu arsalahu lil alamina hudan wa rahmatan id mada jazlun bila wahami fi yowmi lithnayni fi lchahri almuazami id li abrawiza mada li ishruna min umami wa kaana badan ala xubbi alxalaai ila an jaa fi lgaari ruuxu alqudsi lam yanami wa gattahu li buluugi aljahdi qaa'ilahu faqra wa qaala lahu ma daaka min nudumi id karrara algatta marratin yaqulu lahu qra bismi rabbika antal xaatimu nudumi wa aba murtaidan mimma yara fazian wa qailan zammiluuni tarfau humami xadijatun sakkanat bilqalbi qailatan lam yuxzika allahu fi daarin la takimi jibril mboq ko pour mu jàng ba mu jot dayo coono waxat tahu mu mboq ko moom jibril li buluuxil jahdi ba mu jot ba mu jot dayo coono qailahu mbirum nekkam di aji wax ko naan faqra jàngal wa qaala mu wax loxoo ñeel jibril maa daaka déet jàng min nuzumi di sama aada di sama baax man xaw baaxawu ma jàng id karrara ba nga xamee ni baa mu ne moom jibril alxatta mboq ga marratin ay yooni yooni yoon ba ba coono ba métti yaqulu la waxee nag loxu ñeel ko iqra bismi rabbika anta yow alxaatimu nuzumi yonent yëpp yaay yaay yaay tëj nga muhammad mooy mooy alfatixi li maa uxliqa wal xaatimi li moo tëj moo tijji yonent bi salaam du du buntu yàlla caabi yàlla la caabi yàlla la boo defaree sa bunt def sa serrure lépp te caabi du sotti wa miftaaxun wa misbaaxun muniiru jawaadul mustapha aynul uyuni wa miftaaxun caabi moom Muhammad wa misbaaxun lamp la muniirun bu da aji leeral jawaadun aji tabe la Moustapha ku aynul uyuuni mooy sangi-sangi ya kon fa tabaarakallaahu ñu ngi jéggalu lii sax du sama aada waaye samay mag ñoo ko sant ndax man habitué wu ma wax ci samay kanami kilifa yaakaar naa ni tey la ma am tey tey la ma am ma yëkkati kàddu sama kilifa toog may ngal-ngal kon papa maa ngi la ciy jéggalu bu baax ndax la yàlla waxoon nabi sallallahu alayhi wasallam ni ko laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi yéen ci ngeen bokk yéen suñuy kilifa yi ci ngeen bokk waru leen toog ñuy yëkkati kàddu ndax fa tabaarakallaahu yéen yéen a donn Seydina Muhammad ndax Seydina Muhammad ñaar moo daje woon ci moom benn ba yéen moom ngeen donn ñaar yaa daje woon ci moom mooy wilaaya ak nubuwa Muhammad nabi wi la woon wali wi la woon nu nubuwa ga ba mu fi jógee la fi yam laa nabiya baadahu wilaaya ga nag moom lañuy ñuy ba yow nga jot ca sa baay jot ca sa mag jot ca sa maam jot ca say maamaat jot ca ba tey jii fa tabaarakallaahu te du fi jógee euh, kon nag waruñoo jóg waruñoo wax ci seen kanam kon ñu ngi sant famille bi nee na ñu ngi sant képp kuy famille sii ñëpp teew nañu waaw ñépp teew nañu kenn desul ngir lan Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour jaral leen ko ndax ñii moo leen jur ñii muy seen nijaay ñii muy seen lépp fa tabaarakallaahu kon képp kuy siyeen teew nga ngir lan bokkat ak famille Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour fa tabaarakallaahu bis bi màggal si bis bi jàpp ci bis bi kenn ku ne jàpp na fa tabaarakallaahu foofu la ñuy yem ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaw euh, sëriñ Habib nee na ma wax ni sëriñ Moustapha Moustarchidina nee na jàpp na ci bis bi nee lu fi nekk ci matériel ak taxawaay moo ko fi def te nee na itam participer nañu participation bu rëy ci bis bi kon sëriñ Habib nee na mi ngi leen di gërëm bu baax di leen sant loolu la ma waxloo wax naa ko sëriñ Habib nee na ma waxaat nii Demba Diop ñoo ngi koy sant bu baax ci nee na li daayira yëpp waroon def moom kese moo ko def ci lépp nag nee na li daayira yëpp waroon def daayira yëpp def nañu gaa waaye nag neena na Demba Diop moom daa li mu def lii daayira yëpp waroon def moom faf moom moo ko def benn yoon fa tabaarakallaahu sëñ Habib li ma wax loo woon ci Demba Diop wax naa ko ak lan mu ni sëriñ Habib nee li ma koy tëje nee na mooy dafa am koo xam ni participation doyoon na mu agsi teew nee na dafa feebar nekk ca France nee na mu doyoon ko sëkk ngant mu ni sama bisu mag jii sama soppi bii duma ko wuute mu ni jaay naa sama bakkan jox ko ko muy sëriñ abdu nee na muy suñu baay bu tedd bii bu baax bii bu yiw bii bu sell bii jàmbaaru xadara bi di suñu baay sëriñ Abdoul Aziz Sy man de nee naa ko wax naa ko benn wax te dama ko gëm foofu laay tëjee billaahi wallahi tallaahi bu yàlla naree gàttal fanam na jël sama fan man bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa maa ngi jël kàddu ci turu comité national préparatoire bi nga xam ni ci ndigalu famille bi lañu ko sampe ñu santoon ñi ci ay liggéey ñu taxaw ci liggéey boobu lu mat weer ba tey ji sunu boroom indi ñu ñu fekkee bile jataay muy jataayu yiw jataay bu am barke di nuyu ci turu commune bi sëriñ Abdul Aziz Sy Al Amin di suñu sëriñ di suñu soppe ñu di ko bége fu ñu toll di tënku ci ñaan gi nga xam ni ñaanal nañu ko ci wér fan bu gudd yàgg nekk porte parole famille yu Cheikh Seydi Hadji Malick Sy na ko yàlla def ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh na Ahmed Tijane Chérif Xutbul Maktum barke njabootu gi sant si bu loolu passé ñu jël suñu cant suñu nuyoo suñu ziyaara teg ko ci loxo sëriñ Abdul Aziz si Al Amin mu jottalil ko mboolem famille yu Cheikh Seydi Aji Malick si radiyallahu taala ñu am nag ay baat yoo xam ni dañu fas yéene dolli ko ci kàddu yi fi joto jib mu jëm ci Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour Sy radiyallahu taala anhu ngeen jàpp ni Sénégal suuf su tedd bari njariñ bokk na ci réew yi nga xam ni kenn dootul werante seen màggaay seen njàmbaar ak seen bëgg lu baax senegaal ëmb dëkk bu ñuy wax Tiwaawoon te Tiwaawoon mësul dellu gannaaw ci lépp luy jox doomu aadama yelleefam ak mëtuwaayam ci fànn yépp yooyu màndarga ñoo jëmmal taxawaayu kilifa gu ñu mën a boole ci mbindeef yi nga xam ni seen jëf te lépp rafet ràññee nañu ko ci biir àdduna ak lépp lu mu ëmb kilifa googu moo di Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour si xalif général des Tijanes danaa faral di wax ni daañuy wax ni xalifa kër sàngam waaye bu ne xalif des Tijanes fii ci Tivaouane lañ koy fekk sayu sama bët ne jàkk ci jant bi tëdd ci biir dex bu ñuy wax Sénégal ma daldi xalaat yow Mouhamadou Mansour si biddéew bi daan leeral Sénégal ak Afrique rafet lool ba jéggi dayo taaru lool na tóor tóoru gerte leer loor na wurus bu ronu jantu njolloor yàlla dogaloon ci coobareem Seydi Mouhamadou Mansour si nekkoon meññeef bi nga xam ni ci suuf su sell te nangu la sax ba tax yaakaar bi Sénégal amoon ci moom doon yokk saa sude yow boroom daara ji mësoo dellu gannaaw ci say wareef ngir daan sàkku lu jëmale ci kanam Sénégal di sa réew di sa diine tarixa bi ci Tiwaawan ak mbokk bi moo tax mani ni yaa doon làmp bi daan leeral diine ji yaa doonoon suuf si nga xam ni loo ci ji mu sax ànd ak meññeef bu sakkante barkeel yaa doonoon daqaar gi sax ci pénc mi rafet lool te bari ker ku ñëw ak foo jóge dinga nga ba sedd lool te ku am feebaru xol wittal ca doom ya maccal boo ko defee di nga am wér te loolu de bu ko kenn miim ndax lu buur yàlla dogaloon la ci Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour Sy yow mi daan am jàmm ak xam-xam bay maye jàmm di jàngale xam-xam nandal ñu sa déggu xam-xam bi nga doon di ball ndeyjoor ak càmmoñ ku ñëw te yaru tànqal naan boo màndee xamloo xamul woon barke waajee ni toll bu kenn miim buur yàlla dogal jóg naa suba teel laata jant làmboo yor yor ma waaxu wut si la yow géeju xam-xam bi ñépp xam ngir wur ci yow xam-xam bi dundal xol ak xel li yéeme ci sa kàddu yow Seydi Mouhamadou Mansour si borom daara ji moo di baatin bi ko ëmb sa kàddu day dàq fitna di indi jàmm di rafetal jikko di yokk ngóora te képp ko jóg fas yéene liggéeyal sa réew ak sa diine pour mu jëm kanam boo ñëwee ci Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour si dina la teg ci yoon suñu làmmiñ yow borom daara ji du tàyyi di la tudd bis bu ne ak saa su ne li tàmbalee fajar ba jant so ak lu ko wër ndax ku am xalifa bu mel na yor bu ko neexee bàkku ci biir làmbu diine ji garab gi ñuy wax guy bu taaroo bay bàkku ndax nawet bu neex te nangu yow sóora malik ibnu seydi ababakar si yëkkatil sa loxo ca kaw ndax xam-xam bi la yàlla jox ndax say kàddu yu maandu ci lépp lu mu ndax sa jëf ci diine ji ci tarixa bi ci mbokk gi sa dund sa liggéey sa jàngale ak say jëf ku ci sukkandiku di nga jox loxo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak moom nag di daagu ci jannatul firdaws asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf président kooku moom moo jiite woon comité bi doon liggéey lii yëpp depuis presque trois semaines muy Abdou Majib Sène bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alqail fi muhkami tanzilih munawwihan bi dawri ahli alilm shahida allah annahu laa ilaha illa hu walmalaikatu ulul ilmi qaiman bil qist wassalaatu wassalaamu ala nabiyi lfatixi alxaatimi alqaaili alulamaau warasatu alambiya wa baad fadilata cheikh abdulaziz al amin فضيلة الشيوخ الحاضرين حضرات المقدمين والمعلمين حضرات الأئمة حضرات الإخوة أعداء دائرة المنتدبين أحييكم بتحية الإسلام الطيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته innahu la yowmun azim an tasaa daairatu lmuntadibina xasa saaya almashkur fi taxlidi ziyarati allati kaanat taxussuha li cheikhiha wa muallimiha wa wasilatiha alcheikh mohammadin almansour ibni alxalif ibni seydi alxaaji malik radi ridwanullahu alayhim ajmain cheikh Mouhamadul Mansour alladi wahaba xayaata lil ilmi wa ahli l ilm wal fuqara wal muxtaajuun li ajli haada tax na bi ma ñëwee ba fii sax du ñàkk lu ma ci war a mën a geesu rek ti mu gën a gàtt mooy El Hadji Bachiru Cuun bi nga xam ne. am na lu mu wax lu mat juróomi bayit ci cheikh Mouhamadul Mansour tegoon ko ci loxo alaji mbay donn mu nettali ko ma fas ko nettali rek wax ak sëñ Abdou wax ak njaboot bi xaaji mbay dondam tàmmal na suñuy nopp ñépp miin li may bëgg a wax daara jaa ngi a fa teew Mansour ay bindal ku fa ñëw kàggu mbay fi timbi na waaw doom ju baax sigal na ko soro mbay moyul ndigalam daara jaa ngi kenn du na cam loo laaj mu daj masalaam leeri mbay fi teggiwu ko uuf na raw du baaki rakkam yor na daara ja ak lewetam def jomam ci bañ ku ko yab moo taxit wegeef na ko kon Cheikh Abdul Aziz Al Amin sunu sëriñ Seydi Hadj Malick demaale nañu géew waaye li ma lay wax rek moo di ne fa tabarakallahu si ku ñuy jiinal doo taamu ndënd mu neex ku ñuy jiinal doo taamu ndënd mu neex te nun ñi ñépp di njaboot kenn ku ci nekk bu ñu la joxe microbe bi mu am mu xam mu xam mu man la muy wax jëme ko ci yow ndax yaa ni bindoo kon fa tabarakallahu bi nga xamee ne Seydi Hadji Malick dugg na fi mu dugg te duggaaleenu duma guddal damay gàttal xanaa rek initiative bi lay wax ne dolleeku ci daara ji ñu teg ko ci loxo xabib mu jële ko ci ay magam mu ñëw àndante kook nun rafetal bés bi yóbbu ko fu mu yeggul woon non ko ci sant nun waa daara ji des di dugg gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yàggal taxawaayam bi li amee fu ne ubbi na fa waañ waaye nag yëg nañ na waañ wi daan ubbeeku te soxna fas yi di ko ubbi ak waañ yi ñu ubbi yépp ànd ak waañ wi mu ubbi mën na noo wax ne garanti na waañ yi nga xam ne sos nañu leen feneen ñëpp nu ngi leen di invité ci añ yi nga xam ne Sonefas yi togg na ko fii ci école bi dafa ñëpp añ se ndax yëg na ne dana doy dana neex dana mel na mu war a mel kon itam ñoo ngi koy sant ci boobu anam te di ko gërëm sëriñ bi ziar bi ren la ci fukki at ak juróom ak juróom ñeent fukki at ak juróom Cheikh Mouhamadou Mansour Sy masu koo jàpp yow sëñ Abdou yaa ko daan jàpp ren itam yaa ko jàpp yëg nañu ne sëñ euh, Mam Malick nee na coup euh, sëñ Habib nee na kuppe nga sa voyage ngir bés bi waaye nag nun noo ngi ci biir coupé boobu nga coupé sa voyage ngir bés bi yëg nañu ci suñu bopp bu baax a baax fa tabarakallahu ngir fa nga ñu teg am nañu benn bés boo xam ne Gàmbi la la fekk huit heures wala moyen mi ngi la fekk Gàmbi jàllaguloo bag te war a teew sa ziar bi amoon tournée boo doon def nga coupé tiyaar tournée bi waaye bu nu duggee ci biir na ko sëriñ bi kat guddi na te sëñ Abdou ñëw eh, eh, guddi na yem ci baatu guddi na mu ne ndax sëñ Abdou ñëw na sëriñ bi de fi ne guddi na te ñi ñi fa ñibbi dafa sori mu ne ndax sëñ Abdou ñëw na ñu ne ñëwagul mu ne kon baax na kon baax na jooju de nu dellu gannaaw bu ñu dellu suwaatee soññi ko na ko sëriñ bi kat fii mu ne nangam nangam mu ne ndax sëñ Abdou ñëw na ñu ne yëg seegul mu kon baax na yoonu ñetteel wa nag ñu ne ko sëñ Abdou yëg mu ne kon waaw kay loolu am na lu mu jàngal ci dundam waaye nag itam am na lu munu bàyyiloo xel ngir ëllëgam kon sëñ Abdou ni ko maam Malick waxee sëñ Abib confirmé ko lépp ngoog ci sa loxo loo ci def doy nanu loo nu wax nu taatan ko te jëfe ko yal yàlla guddal fan wi yàlla yàlla yokk man gi bi sëñ Habib waxee ne sant nañu képp ku nga xam ne yëngatu nga ci bés bi noonu itam daara ñoo ngi ci biir di santale santante santale sëñ Habib ci képp ku yëngu ci bés bi ndax bés la boo xam ne fa tabaraka la ku ne mën na cee gis sa bopp kenn ku ne mën nga cee gis sa bopp ndax keroog suñu daje ba ba ñu ne hommage ma ne leen hommage day man bu ñu ma ko doon firiloo man pa dama naan mooy delloo njukkal delloo njukkal nag baat la bu yaatu boo xam ne bi lu ne xaj na ci moo tax prononciation boobu la gis naa ñu jël ko sax di ko ci di ko employé waaye man ni ma ko déggee man mooy delloo njukkal kon sëñ bi maa ngi guddal di nuyu bokk yépp fa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.